yéen a ngi teewlu info yàlla dëgëral taxawaay bi yàlla fexe ba képp ku fi ñëw di sàkku yàlla boo ñibbiseeg neen yàlla di mottali yaakaar yow en tout cas sa toogin say doxalin ak sa jëfin tax na ba ñëpp am espoir boobu yàlla na yàlla di mottali ah yeesalaat rek ndokkal leen ca la nga defoon Soudan dañ koy tiitaroo di ko ndamoo parce que dafa montrer exemple ci aptitude capacité compétence suñuy wëjur suñuy kilifa lu ñu mën bitim réew te ñu waroon leen ko yaatal fii ci réew mi mais fii ci réew mi da ngeen toog seen place te mooy bi gën tànk yi tànku ngërëm la aussi parce que suñu sëriñ bi fàttali na ko léegi bi ñu dëgmalee li ñu dëgmal mu yéeneeg yaakaar dañ fi ñëwoon dalal la suñuy loxo wax la suñu bopp nga ñaanal teral def aussi ay teraanga ah suñ demee ba yàlla defal ñu ni moom niñ ko bëgg war nañ dellu si fii ni la jërëjëf d'abord wax la ni ñaan nga yàlla mottali na dañ doon wut yàlla defal nañu ko jullit nag ak doomu aadama du doyal su doon suñu sago ñu am majorité bu wóor même suñ ñu sàccee mais yàlla defal nañu lii lii mu ñu defal duñ ko xeeb dañ koy gërëm sant ko te naan ko doon nit parce que loolu mooy ci dollil ak gërëm sant boobu nag ñu di la sant bu baax di la ñaamal parce que keroog bi ñu waxee yow yedd nga ñu waaw gindi nga ñu ñaanal nga ñu mm. yal na la ko yàlla fay li nga yaakaar ak yéene ci ñun yal ko yàlla di mottali ci gis rëccu donc gërëm la sant la ci loolu ah di nag ci lii ñu dëgmal muy gàmmul gàmmu gi comme ni ko suñu sëriñ bi wax léegi doyen Jokal mottali ko lu sax la fii parce que fii nag kër la goo xam ni kenn du laam-laamee seen ancrage ci diine ji ci umma bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa looloo tax su fekkee dañuy ñëw jëmlu ci gàmmu gi ñëw fii ziar lu war la pour ndokkeel leen parce que bisu mbégte la pour ñaanal leen parce que bisu ñaan la et ñaan aussi que li nga xam ne moom la suñu waajur yu defoon te tey nga toog war ko mottali yàlla na yàlla def ba lépp rafet képp ku fi ñëw di wut si ak ñaan si yàlla la yàlla mottali sa yéene